嗯。 man bikum li may ñaanal sama doom ji mooy ëllëg mu nekk njiiti réew bu Sénégal yaayu xalifa Sall moo ñaan kàddu yi ni mel l'observateur yeggee ñu ko maire Awa Niang wana mbégtem ginnaaw bu doomam génne kaso waaye nag nee na njiiti réew Macky Sall fayut naar bi xoromam de ànd ak loolu yëpp nag sama doom ji yéene naa ko lool mu nekk njiiti réew bu Sénégal doom ja Khalifa Sall mel ni kuy tontu yaayam na ko yaay booy nee naa amin waaye na xel dal lii tax ëllëg ma nekk njiiti réew bu Sénégal gëm-gëm la a liggéeyal askan wi xam ki ma doon responsabilité yi nekk ci man ak li ma yéene sama réew te loolu nag kenn mënu ma cee génnee kàddu xalifa sàll mi ngi ci wal fajër yéene kaay ab leetar la jébbal askan wi xalifa sàll nee na ñi koy fakastal ñi koy gasal ay kàmbu ñoom ñoo ca xala surax tàbbi waaye du moom de kenn mënut koo arrêté ci wàllu politique ak ci li mu bëgg Dakar Times na ko yow xalifa sàll laay wax na la wóor ne am na sëkk lu la doy xam nga bàyyi nañ la nga génn kaso waaye ay défi mbir yooyu lëj yoo war a lijjanti mi ngi sa kanam a yow seetal ñi nga jiite ci wàllu politique fi mu toll ni seen parti yaak mouvement ya ci crise lañ nekk xam na ñoo xam ne biñ la tëjee kaso fañ laa wan gannaaw dem ànd ak Macky xam ñu doon waaj a dem pëccëxoo boobu lijjanti ko moo gën ci yow les éco yéen kaay na ko li nga waxee dëgg de te ma yokkal la ci nag avocat Khalifa Sall yi sax dàqu ñu yóbbu ci yoon maître mu Touré bi nga xam ne moo sàkk Macky jéggal xalifa te Khalifa santaane wu ko te ñoom itamit yëguñ ko ndax yëfi fa leen a naqari de comme nag tontu du forox maître Qassimu Touré ci vox populi na leen maa tey gis kenn ci yéen dafa tëdd ca kaso fa demoon da nga bëgg ku la fa génnee bu ñu kenn ray yéen soofu leen rek laa si ne beneen coow judd na ci génna xalifa sàll gi mooy àq ak yelleefam ci wàllu politique nekk candidat ak ñoom seen nena na yaay mënta nekk fañ ko koo xañ waaye am na ñu ne kenn xañut ko ko ayaw seet monsieur Camara xam-xam màcc ci wàllu yoon nee na Khalifa Sall fekk defuñ ko amnistie wala ñu jëlee fi article L31 du mën a nekk candidat 2024 ak élection maire yi di ñëw nguuda mbuub jàngalekat ca université bu Ndakaaru na ko hee ak yow de defal ndànk Khalifa Sall jamono ji kii mën naa nekk candidat 2024 àqam ak yelleefam ci wàllu politique ay droit dara la ci ñàkkut nay leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy coow werante wi juddoo ci bàyyi gi ñu bàyyi Xalifa Sàll du dara lu mooy xeex la ñaari wàll yi nekkee kenn ku nekk bëgg na dugg ci xolu sénégalais yi le quotidien yéen a kaay ñu ko xamal la ma ñu xamal moom libération mooy fukki dëgg ak juróom-ñaar ya farandoori Xalifa Sàll yi wax ci bàyyi gi ñu ko bàyyi ayaw seet ndam Gala Jaw nee na faham ndam Moussa Tine feelu ko na ko li nga waxee dëgg ndax moom sàkkuwut Macky jéggal ko Macky jéggal na ko moo tax bi ko waxee génnal kasa sax fa bañ na du génn feeg leeraluñ ko la mu leeral moom Barthélemy Dias ci yéen a kaay bi mooy ne Xalifa Sall ci boppam xamoon na ne dana génn kaso Macky mi ko génnee tamit fa xamul di ndax lu du dëgg du yàgg yàgg na lool nag ñetti weer maître Qassimu mu jéggal Xalifa Sall 19 a génnee kaso na ko xaaral ma moo génnee boppam kaso ah ngir am xel mu dal ak loolu mu duggoon fexe nu mu ci génnee wàllu politique fexe andi dal ci réew mi kon génne Xalifa Sàll gi Macky la génnee kaso ndax xuboon na boppam bi nay leer la leer ba mel ni jant tusubaar nag mooy ne tey ci talaata ji ci la école di tijji Sénégal ngir jàngalekat yi élèves yi nag le 3 octobre ñoom ci la ñuy dem école si di du quotidien moo ñu ko xamal waaye liy ñuul ci soow mi nag yéen a kaay bi moo ko wax nee na école Sénégal yi ñoom dañoo parewut sax ngir école kon naka lay tijjee yii ñi nga am ndox yeneen école yi ñu ndox mi nangu seen kër ña nga fa sanc koy jàng tey des koy xoolaat de leneen lu ñu war a xoolaat Sénégal mooy urgence yi ci hôpital yi téeméer boo ci jël juróom ñeen fukk ak juróom-benn dara ca normalul baaxut santul yàlla Le Soleil yéen a kaay nag moo ko wax yéen a kaay bi bokk ci nguur gi nangu na tey na bëri na lu ñu war a jooyanti ci suñu hôpital yi jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Diouf Sarr mel ni ku naan leen wax ngeen dëgg de moo tax ca wal fajar yéen a kaay nee na jàngoro ji daal maa ngi koy lañ bët ngeen andi ci saafara feneen fu ñu war a utal saafara mooy bor bu bëri bi Sénégal xamee juróom-ñaari junne ak téeméer ak fanweer juróom ci ay milliards ci suñu xaalis loolu foog ngeen a jàmm la ba tax waa FMI ña ngay artu di dànkaafu réewum Sénégal source a yéen a kaay ñu ko xamal li mu ñu xamal moom turbine yéen a mooy suuf si si Sénégal téeméer boo ci jël juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent borom wala bokk xanam goñ ko xamee yëfee leerut mbootaay réewu Europe yi nag ña ngay ñaax nguuru Sénégal ñu taxaw ci jël ci ay matuwaay ke jël ay matuwaayam lu yàgg taxaw ngir jàppale njiit réew Macky Sall guddeeg bëccëg suba ngoon du kenn ku may soxna Mimi Touré direct info moo ñu ko xamal ne ku am kóllëre la kuy xeex ngir njiit réew Macky Sall li ñu war a xeex dëgg nag Sénégal mooy cancer wen am fi ni bëri ci réew mi de critique yéen kaay moo ñu ko xamal ne buñ ko teelu ta gis ci soxna si xamul traitement cancer booba fay mujj ray soxna sam dal ma dal ci stade yéen a kaay fekk fa jongante yu saf sàpp tey ci talaata ji ligue des champions Tottenham Bayern record yéen kaay na ko yokk ci Galatasaray ak Paris 19 heures gànna nar naa daj lu mburu daj ci taxaw les éco yéen kaay jox kàddu Aliou Cissé nee jongante xaritoo Brésil Sénégal wuñu ci sonn ngir ut téléphone bu cher mooy sénégalais rawatina xale yi jigéen yi xamal l' observateur moo ñu xamal ne iPhone triple XL mi ngi toj dëkk bi fa cher ba jéggi dayoo te rewul sénégalais yi fa ñu ko bëgg iPhone 7 su fekkee xam na ñu koy jënd ci seen xaalis xale yi jigéen yi moom ñu bëri si ñoom fa leen a jaral ñuy jaay joxe seen bopp ngir am iPhone 7 allah waa ma ne jaay sa bopp ngir téléphone waxtu woo xoolee téléphone ba gàcce war laa dal mar naan warutu tax a naan fóotit su ko defee nag nga yore sa téléphone ba di dosé ak a aaral na dugg ci ndox rek wala oto ko mu toj mokk ru